عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك وامق الختمية والكتمية الصديق الأكبر وخليفة الأشهر شيخ المشايخ برزق البرازق أبي الأنوار والأسرار أبي الفتوحات والفيوضات ممد جميع رجال الله سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفته نور ضمانه لسان وقته فريض ظهره وهيد عصره مولانا شيخ إبراهيم نصر القائل والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى خضرة البر الرحيم إلهنا تعلم هل في القلق أحنا عليهم من الظهر مني والبعيد فقالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa jëmm di tàmbalee nuyoo bi si ñi nga xamee ne ni ñooñu sargal jugee ko fële ñuy wax Medinatu Ibrahim ñëw fii pour dundal li nga xam ne moom mooy xolu nit ñi nga xam ne wala xolu taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii si Ndar kon avant ñuy def présentation duñ def lenn lu ubbee yi nga xam ne moom leen aada di ubbee fépp foo xam ne ay taalibe baay daje nañ ko mooy fàttali yenn si aayatul Qur'an kon kàddu gi dañ koy jox yi nga xam ne moom mooy Mouhamed Diop toogal ne daar sëriñ bi la wul sëriñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نعمة cite son excellence Cheikh Aboubacar Abdoulaye Niass mi ngi ànd ak tamit ci kenn koo xamee ne ni ndar miin na ko nga xam ne doom la si ki nga xam ne mooy Oustaz Barham Diop mooy Cheikh Moustapha Barham Diop ñi ngi ànd ak ku ñuy wax El Hadji Abdoulaye Thiam ñi ngi ànd ak ku ñuy wax Cheikh Baye Niass mu ngi ànd ak ak ku ñuy wax Cheikh Mouhamed Lamine Mouhamed Yahya ñu ngi ànd ak ak Xaaj Malick Sow ñi nga xam ne moo jàng alquran bi ñu ngi ànd ak ak ki nga xam ne mooy Issa Sow mhm. ñu ngi ànd ak ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed euh, Muntaha Ibrahima Niass moom mooy toog suñu ndeyjoor mhm. ñu ngi ànd ak tamit. ak ki nga xam ne mooy Mounirou Seck président Ansaroudine Louga délégation boobu moom moo jugee Medina Baye puisque tamit warugar la si ñun délégation la présentation la mais aussi remerciement la mais aussi salutation la bu nga xam ne mu ngi tukkeekoo si mbooloo mi di dem si ñoom gannaaw boobu tamit ñi ngi fàttali tamit ne mbooleem ñi nga xam ne mooy bureau Ansaroudine tamit teew na fi comme ñu mel ni le président oustaz Mor Niang na fi euh, les vice présidents tamit teew fi le secretaire général en mon nom teew na fi le trésorier teew na fi euh, le chargé de la commission finance commission finance Ibrahima Ndiaye teew na fi le chargé de la commission d'organisation Cheikh Tidiane Niass teew na fi La commission Presse Info, e Info dirigée par Chassel et ses adjoints Théonenfi, commission Relations extérieures dirigée par Malik Sow Théonenfi, la commission féminine dirigée par Famando Kumbo Moubaye Aramba Théonenfi, la commission culturelle dirigée par Cheikh Moustapha Sow Théonenfi et les euh, étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis tamit euh, ñi ngi gërëmaale tamit daayira des élèves et anciens euh, yi nga xam ne ñoo fi nekkoon tante bi ni mu taxawee ñoom ak étudiants yi ak équipe bu bi ak projection bi ñoom ñëpp ñoom ñoo ko def lii moom moo nekkoon présentation bi nga xamee ne moom mooy njëkk nga xam ne liñ fi indi ñun ñëpp mooy déglu sëriñ bi déglu Cheikh Aboubacar Abdoullah Euh, ñun tey mooy indi woon thème benn xadis boo xam ne yonent bi moo ko wax bés di wax am na waa joo xam ne moom dafa romb mbooloo mi rek gis mbooloo mi na xar xaram yonent bi mu taxaw ci gannaaw nit ñi nag di déglu yonent bi sallallahu alayhi wa ne bés pénc dana am gaa yoo xam ne ci àddina kenn xàmmeewu leen woon dara amuñu woon benn garaat du xam-xam du askan du alal du jihaat du dara mais bu bés pencee yonent yi sax danañ leen xool di laajte ñi ñooy ñan ngir jege buñ jege yàlla ngir kawe guñ kawe ngir leer guñ àndal waa ji yéemu ci wax ji xuus nit ñi ñépp ba agsi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sifli haawulaay hatta aarifoo soo sa gaa yooyu seen affaire dafa doy waar jox ma seen mandarga pour ma xamee leen mu ne ko naasu mu ne ab naay naas kaanu yattabi'una li zaatillahi tabaraka wa taala ay nit lañu rek ñu ordinaire doomi ay nit ñu ordinaire mais li am nii ci àddina ñu ko amee ci lu simple lu meloon ni lu yomb la mooy suñ leen ooyee ngir yàlla ñu ñëw dajee ngir yàlla xam nga oote ngir yàlla ñu dajee ngir yàlla ku xam bàyyi nag oote ngir yàlla boo xam ne ci keppaaru bàyyi lañ ko defee xam nga ne ku ci uy si war nga xam ne am nga tawfeex boo xam ne tawfeex bu am naa ko waaye nag qualité bu xasee ba dugg rek daanaka néew gën boo am ci su fekkee ne néew sax mën damay faral di wax ne lépp lu ñu def rek fexe ba mu saf yàlla mbir bu xasee ba saf yàlla kenn du ne gàtt na kenn du ne gudd kenn du ne bëri na kenn du ne tuuti kon nag mbooloo mi moom wax dëgg yàlla sax na yàlla waaye pour bëggal nit sax danaa ci nettali ñaari karaama ci bàyyi yoo xam ne bàyyi sax soxlawul karaama waaye nag dana neex ci xolu taalibe gis ngeen euh, ce que moom nettali na leen taarika kii moom ci boppam karaama la ci karaama bàyyi loolu man maa ko sañ a wax moom sañu ko wax xam nga lu tax ma ne karaama la ci karaama bàyyi dafa di war a jàngi yàlla xëy ko xaw ma lu ko yóbbu Madina Baye pour dem ci école ba parce dégg nañ école bi rek di ko jàng boobu xaw sax luy sëriñ waaye nag yàlla def mu bëggu xam-xam lool góorgóorlu lool bàyyi tamit jàngal ñu loo xam ne loolu rek suñ ko nettali woon ci thème bi ngay wax ni dem ñibbi rek na mooy lan mooy dañ koo may bourse mu mënoon a jël bourse yi rek jox ko ay doomam parce doomam yaa ngi bëgg a jàng jël ko rek jox ko ay taalibeem parce que a mu ne déedéet nañ ko yóbbu ci école ba waaye bu ñu demee ci école bi tamit moom moo joxe sujet yi nga xam ne moom lañ war a defal test élèves bi ku ci gagné ñu jox ko biñ defee test yi moom mii mu jël benn ñu ñëw ci bàyyi dafa am na loo xew kat mu ne li xew lan la ñu ne ko ah moom day test yi def nañ ko am na ku jël waaye kooku du taalibe de bàyyi du toog ne leen man maa leen waxoon ngeen maa leen waxoon ne mbiram taalibe moo tax mu sam suma école dem leen ngeen jox ko comme dañuy te ngeen oor boo ko mu ñëw fii mun tokkeel ko dégg nga ñaanal ko mu dem ñaŋ oustaz bi moo ñaŋ moom moo nekk tey président assemblée bi loolu lu waa yéen waa assemblée bi da da ko war du hasard mu toog toog toog ba xëy nekk président assemblée du hasard mu xëy xëy ba nekk bu xadam euh, mi ngi yore lettre boo xam ne bàyyi ko ba mu nekkee ba mu nekkee kër di jàng bàyyi di ko tudd ci taalibe bi te boobu nekkagul taalibe ah bàyyi lim ko ci bi te moom boobu xaw ma boog foog na ne nekkagul taalibe boobu beneen bi ci des mooy oustaz Banga mi oustaz mii ngeen gis nii professeur boo xam ne la. université Dakar université yooyu xam nañ ko waaye université yi ci àddina bi yëpp Amérique ak fu nekk macha xam nañ te kat moom dafa demoon ba foog ne bàyyi na jàng dem ba décidé ne dafay bàyyi waaye bàyyee ko feeñ moom ci ay naaw la waaye du nelaw ko ne ko hey jàngi mu jóg demal nga jàngeen boobu ci la nekkee foo xam ne. fu nekk fu ñuy waxee ci àddina bi ci xam-xam rek soxla nañ ko fa mu dem kooku kooku te bu ma ko toppoon danaa dugg ci bëri yoo xam ne taxul maa jóg mais loolu dama koy wax rek pour dëggal xolu nit ñi pour xam ne itamit li nekk du affaire caaxaan te nag wax dëgg yàlla jaar na lu nekk te bàyyi bu ko liggéeyal fay euh, bu ma bëggee dugg nag ci sujet bi te bëgguma jël jël bëgguma ba ma bëgg nekk waxtaanu teg bu technique boo xam ne Euh, ñëpp dañ koy mën a jàpp balaa si si yi di xiif ba dootuñ mën a déglu fekk li ma bëggoon wax naa ko bàyyi. Euh, dana xaw a doy sax parce que aaya bi nga xam ne man ci laa bëgg a sukkandiku sama waxtaan comme d'habitude comme waxtaanu xam-xam la te waxtaanu kër bàyyi la dafa war a sérieux te waxtaanu diine moom bu sérieux mënta sukkandiku lu ma ci alxuraan wax joo indiyaat gannaaw alxuraan rek pour leeral alxuraan la war a doon d'accord nañ ci principe donc nag aaya bi ma nar a indi wala aaya yi ma nar a indi su ma ko jàngee sax am na ñoo xam danañ jaaxle ne waaw kii est-ce que def hors sujet waaye wallaay defum hors sujet aaya boobu aaya yooyu mooy lan bi yàlla di wax ci alquran ne fii buyuutin azina allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asaali rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillahi wa iqami salati wa itai zakati yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi waaye nag lu mu ca teg li yajziyahum laahu ahsana maa amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaa'u bi xayri hisaab lii la yàlla wax ñu jéem a dégg nag lan moo tax man ma tànn xam nga yàlla jàkk ak jumaa la wax wala jàkk waaye kuy wax julli wax jàkk yàlla ne am na ay néeg yoo xam ne ci kaw suuf man yàlla maa santaane ñu yëkkati ko waaye nag buñ ko yëkkatee lan mooy mission mooy ñu jëfa tudd yàlla ba pare dafa njëkk a wax tudd yàlla bàyyi xel ci li may wax ba pare teg ci ne sàbbal yàlla ay góor te góor foofu buñ ko waxee du du du du ci du ci du ci du ci sexe bi góor mooy mooy rek li olof di wax góor-góorlu pour gàttal ah bu ko defee jàmbaar mu ne ay jàmbaar ay góor ay nit ñu dogu di fa sàbbal yàlla suba ak ngoon moo tax ñii ñuy sonal fii suñu gëddoo yi suba ngoon ngeen ko ci indi euh, man bëgg naa ñu wax ma bi la ko dugg wala asaal moom tamit ñu ko indi mu ne ay góor yoo xam ne laa tulhihim tijaaratun wala bayun an zikrillah commerce ak utam alal ak jaay jënd dox seen digganteeg tudd yàlla bàyyi mu ne buy ko firee ne bul jàpp ne li ci alxuraan jublu mooy ñu bàyyi jaay bàyyi àddina bi bàyyi kër kër yi pour uti wërsëg dem jaamu yàlla wala dugg xàlloo mu ne déedéet kon dégg alxuraan daf de nit ñoo xam ne danañ kër kër ci àddina lépp luy indi alal ak lépp luy indi teraanga suba ba ngoon ñanta ñu ngay ub alal ñu ngay ub oto yu rafet ñu ub tabax yu rafet ñu ngay ub lépp luy teraanga ba pare buñ ko amee du wàññi dara dara dara ci ni ragalee yàlla ak ni ñuy jaamoo yàlla ak ni ñuy defee ndigal yàlla mu ne loolu du dox seen diggante yàlla boobu du dox seen diggante ak joxe asaka du dox seen diggante ak taxawal julli te lépp nag ñu def ko ngir lan ñi ngi ragal bés boo xam ne nii xol yi danañ jaxasoo nit ñëpp danañ tiit ñoom ñuy def ci àddina loo xam ne dana leen permettre bu ëllëgee bu nit ñi tiit duñ tiit waaye nag yàlla mu li maa li ma leen di fa li ma leen di fayee mooy bu ma leen di fay seen jëf yee la ca gën a rafet moom laay def na tukkat dama koy faral di misaal ne waa ji dafa bay ba ba ba mbay mi mu indi euh, mbayam mi ci kanam kii jënd waaye mbay mi ay qualité la am première qualité am deuxième qualité am troisième qualité xam nga comme gerte dana am qualité bu baax dana am qualité bu tane dana am boo xam ne moom fuusit la bu doon ak bu doon jëndkat la daf naan la oh lii daf koy segg ne lii moo baax prix nangam la bii mooy deuxième prix bi lii la troisième choix bi lii la wala lii sax du ma ko jënd yàlla mu ngay man la ca gën a baax moom lay def prix moom lay def fixe prix te moom lay jëndee yi tamit bi nga xam ne mooy cinquième qualité bi wala troisième qualité bi prix première qualité laa ko jëndee les euros laaw ak seulement am lu lay jéem a waaye nag yàlla mu ne du yem foofu su ma leen fayee li ma leen di fay ba pare wa yaziduhum min fadlihi ma yokk ma dolli leen ci sama ngëneel ngëneel yàlla fu meer bu ko xam bu xasee ba li man yashaa'u bi ghayri hisaab yàlla bu xasee bay may dootu dootu lim man may maye naan cent mille laa la mën a maye cinquante mille ak dix waaye yàlla bu xasee ba ubbi buntu maye mayam du am lim kenn mënu ko lii day dem rek tax ma indi ko mooy boo delloo ci taarix gis ban rôle ak ban dawul la jàkka yi ak jumaa yi daan daan daan daan liggéey ci jamono ci taarix bu njëkk ba taarixul islam yépp ba mu agsi fii da ngay daal di xam lan moo tax ma tànn aay parce que yëg nga ne lu lu nit jàng di jàng di xam nga ne moom jàkka ji julli ci li ko tax a jóge woon waaye nag bul foog ne pour julli kese la pour julli kese de parce que am na ñaari façon oote yu ñu daan oote ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bi mooy su waa ji taxawee téye micro bi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu hayya ala salat hayya ala falah ñu xam ne dafay oote julli dañuy ñëw julli si mais am na beneen oote boo xam ne daanañ ko oote ci jumaa ji mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ko itteelaan muy loo xam ne dafa war a wax ak mbooloo mi ñëpp dégg ko ca jàkk ji oote waaye déglul nag ki daan oote jëpp pour pour ñu ñëw ci jàkka ji pour ñu déglu discours yonent bi wala ñu discours déglu li mu bëgg a wax nun daan ootee asalaatu jaamiatu moom xam nga asalaatu la wax te pourtant julliwul julli moom am na no am na façon bu ñu koy ootee mooy mooy azan bi waaye buñ ne asalaatu jaamiatu ñu xam ne oote nañ ci jàkka ji waaye oote wuñ julli am na beneen mbir mu am solo moo xam ne moom la ñuy wax ku jàng ci euh, taarix ku jàng histoire jàng euh, kii sira jàng sax xadis da gis baat boobu asalaatu jàng lu tax mu tànn baat ak asalaatu te pourtant julliwul dafa bëgg wane ne barab bii nit maanaam nañ jéem a xam lan moo julli julli rek lii euh, julli bi ñuy def dem këpp këppal allahu akbar yooyu noonu mooy mooy mooy màggal yàlla ak toroxlu te ñaar yooyu rek moom la jaam war a war a war a war a war a mooy mission jaam ci kaw suuf waaye nag loolu am na leneen lu ko war a jëbbal mooy jëflante ak lépp loo xam ne maanaam boo déggee julli dëgg dëgg daal mooy li Baye doon wax bi ñuy wax ci jàmm naan jàmm jàmm jàmm wax ju bëri lool Baye mu ne man de su ma la bëggoon a tënkal jàmm ci wax ju gàtt nga xam dama bëgg nga jàpp ko mu gàtt dama lay wax ne la jëlal programme l'islam yépp mu ngi mi ngi tënku ci jàpp daanaka benn programme la islam am mooy jàpp nga ne ko bàyyi lu tax mu ne la jëlal julli mi nga xam ne moom lañ wax ne mooy imaadu diin ponk bu nekk mën naa manqué ci diire gi nit ki continuer di doon jullit ba mu des julli mu ne parce que borom xam-xam yi ñoo wax ne julli mi ngi mel ni ni bopp mel ci jëmm maanaam day taali nit mën ngaa dagg tànkam mos ngaa gis pour dagg tànkam muy dund gis nga ku dagg loxoom muy dund gis nga ku dagg lu nekkam muy dund waaye ndax mas ngaa gis ku dagg boppam muy dund mu ne loolu mooy wane ne kon buñ ne ni junni mel ni bopp mel ci jëmm noonu la mel mooy li nga xam ne bu jógee ci jëmm ci jëmm ji man mën a sa dund julli moom li nga xam ne bu jógee ci diine diine amut mu ne julli moomu nag xool ko fi muy commencé ak fi muy fi muy mujj nga xool ci diggante bi fi nekk yëpp julli fan lay commencé allahu akbar bàyyi mu ne booy allahu akbar tàllal sa loxo nii boo fekkee dégg nga li ngay wax mooy ne nee nga bul bu ne allahu akbar bu ko firee yàlla gën a màgg yàlla màgg rek lay firi yàlla amul leneen lu muy gën a màggante waaye mu ne bi nga tàllalee sa loxo yi ne nii ne allahu akbar mooy da nga war ne bi yàlla rek màggee yow yaa ngi dem ci bépp pas-pas ak bépp yëg-yëg boo xam ne yaa ngi koy yëg ne yow doon nga daal nga woon yàlla ne ko maa ngi nii laaxu laaxu man du dara xam naa ne du ma dara mënuma dara mu ne tàllal boobu ngay tàllal sa loxo yi loolu lay signifié ba nga màggalee yàlla rek automatiquement li ci mu ne ba nga ba nga ba nga tasee boo allahu akbar kenn du wax ak yow nga uyu ko doo lekk doo naan doo wax benn programme lu may programme yàlla allahu akbar sëgg yaa ngi ci fannaaw mu ne biir julli gi looy def sëgg su jóot boo su jóotee yaa ngi wax yàlla su ma fi ma mën a em ci toroxlu àgg na que nit mënul def lu toroxlu nit mënu cee def lu ëpp lu ëpp su tax séeréer ba ba mu ba ba ko tuddoo ci weeru koor mu oor ba pare xaw ma ndax ay séeréer lañ koy ñu ooloo ko ci weeru koor mu tàgg ci mu oor ba ngoon sonn lool mu ëpp kuy soog a mos ko oor sonn lool mu bëgg a noppalu ñu ne ko dem nañ dem naafile ci mu naa naafile naafile ba diggu guddi ngóor tey suba teel rek ñëw ci pénc ba toog ba si weeru koor te moo fi tuuboon démb gàddu ponkalam nduur di toog ci pénc bi di lekk ñu ne ko waaye ngóor yi yàlla mu ne waaye yéen seen diine ji kenn kenn kenn kenn da koo xam yéen a joo xam ne fanaanoo xiif yéen doo xiif fanaanoo juuti mënu dama ko man baax moom sujjóot la la noonu la koy tuddee waaye moom mooy mooy nga xam ne fa la nit mën a yem ci topp moo mënoo koo paas kon màggal nga yàlla fa nga fa nga mën a yem ci màggal yàlla toroxlu nga fa nga mu ne nit ñi mu ne programme boobu bi mu ci buggee génn ñëw ci nit ñi wan leen maa ngi woon ci école boo xam ne ak néeg boo xam ne ak xalwa joo xam ne dañoo ci doon préparé bi nga génnee liy waree ne yee génn nga mooy asalaamaaleykum asalaamaaleykum lu muy tekki mooy yàlla leen yàlla may jàmm yéen ñëpp yàlla yàlla may jàmm yéen ñëpp mu ne kon li muy diine li muy tekki mooy nit ki bu paree ci màggal yàlla am benn programme bu muy def lu may loo xam ne bu ko tëralee mu nekk jàmm nekk nekk nekk nekk jàmm bu mu déggee moo tax xale ya tarbiye woon dem safara mu ne lan la ñu naan parce que yàlla safara di jëm ba ma ko ba mu bañ ma ko waxee ma ne waaye yéen tamit programme bu bàyyi bii mu fi indi ak coono bi mu ci daj yëpp ak bi mu ci daj loo yëpp fekkee ne yóbbu suñu bàyyi safara moo war a nekk résultat kon jaw ko kon du ko jar du noonu la doon def oote ci jumaa ja ni muy ootee ci julli noonu lay ootee ñu dem ci jumaa ja li may wax li may wax dana da gën a xam lan moo tax ma ma di ko wax wala sax ñi intelligent xam nañ ko ba waaye da gis ne ci biir à part boobu nga xam ne moom lañ daan oote pour xew-xew bu xew urgence ci biir jumaa ji la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam biir jumaa ji ba benn bés jigéen ñi ñëw na ko waaw xanaa yow sallallahu alayhi wasallam ne xanaa góor ñi a jàng mu ne ko mu ne leen déedéet ñu ne ko ñun dañoo gis suñ ñëwee jàng ci seen gannaaw la ñu nekk duñ te duñ mën a puus ñëw di laajte suñu laaj mu ne leen di yéen leen di jox bés boo xam ne jigéen ñëpp moom kooku moom góor ñi duñ ñëw de waaye góor bu ñëw ci gannaaw lay toog ñu ñëw daal di ñu jox leen bés boobu ñuy jàng góor ñi tamit continuer jàng. est-ce que xam nga ni loolu mooy secret moo tax bàyyi lim tabax tabax école bi lim tabax tabax daara yi bu gudd a bàyyi loolu nga xam ne moo moo moo sunna soosu moo tax mu jël hadis yi di ko indi ci jumaa ji di ko fa jàngee di ko firi waaye am na ay école daara yaa ngi bëri ba bugg a dee. mi ngi jàngale ci maaram mi mi ngi jàngale ci këram mais hadis bi moom daf koo conservé di ko jàngee foofa ca ca kii ba parce que bàyyi daf ne man sama gis sama sama philosophie mooy lépp lu ma xam ne yonent bi sallallahu alayhi def na ko danaa ko def waaye lépp lu ma xam ne nii la ko defee woon nii laa koy def mi ngi nettali benn Ibnu Abbas dafa def ak xale bi koy téyel war waayam bi ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne dafa am benn jamono boo xam ne dafa jékki-jékki rek kenn gisagul nit ñi di jaaxle mu ne leen waaw yéen kilifa gi xam ngeen ci lu ñu ne ko ci lu nekk mu ne nekkul ci dara moom daal dafa ne dafa mosoon a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci egg mu ñëw ba fii am garab boo xam ne bëccëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa seestoo nelaw fa moom it tamit bu agsee fii dana xaar ba heure boobu jot mu seestu ko soxla dégg nga noonu donc bàyyi mu ne loolu li muy tekki boo demee hadis bii bàyyi ko nekk nettali ci raxul mala mu ne bàyyi mu ne loolu li muy tekki mooy nit ki dafa war a fexe ba lu nekk mu xam naka la ko yonent bi defee woon non seulement mu def ko mais defee kon nam ko doon defee xam nga loolu ma ci may may may may ma ciy sooy kon loolu mooy ne bàyyi tamit li mu bugg mooy lu nekk nga xam na ndax nam ko defee woon nga defee ko nii boo demee jumaa ji yem ca yonent si la seen demoon na nga xam ne mu fuut yi délégation yi nga xam ne ñoo doon jugee ci ay xeet di jugee ci ay réew ñëw di wax moom ñii di faslante moom ay kóllëre ñii di signé moom ay pacte ñii di wax ak moom ci avenir ak politique générale bi nga xam ne moom la doon mënee bu ñëwaan ci jumaa jëlee leen di recevoir fay fa lay waxee dem na sax ba jiitu loolu am na ci ci jumaa ji benn coin boo xam ne benn ruq boo xam ne dañ ko fa bàyyi woon xam nga lu ñu ko fa bàyyee mooy soldat yi nga xam dañ leen war a defal formation maanaam ab gëpp Sénégal ñi wax Dakar Bango waaye Dakar Bango bu bu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ci biir jàkk ci fa lañ doon defee formation bi ak première kii amoon na fa sax beneen beneen affaire tamit mooy benn dañ ko fa woon pour ñi nga xam ne nii buñ demee guerre dañ leen faa jàpp ñu nekk te boobu ñu ci biir guerre bi. ñu gaaw rawale leen ca jàkka ja lañ leen doon yóbbu fa lañ leen di tëral ñi leen di defal premier soin foofu leen di fekk ca jàkka ja di leen sax loolu yëpp ci biir jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa ay xeej di def ay entraînement ci biir jàkka ci loolu ku ku ku jàng téere hadis yi di nga ko gis. yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemu ci woon comme ni ma ko waxee am na ay signature yu mu ci digganteem ak ñu bëri ci yi nga xam ne ci affaire ci euh, décision yi gën a mag ak politique générale bi nga xam ne moom la doon def ci nu muy gérer l'islam ak gérer addina bi nu muy jëflanteeg addina bi décision yu bëri yoo xam ne signé na ko ak ay nit bu ñëwee ci jumaa jël lañ koy lañ koy defee fa lañ koy fa lañ koy takkee loolu nag li tax ma indi ko lan la mooy dama bëgg a wane ne gannaaw loolu gannaaw bu loolu amee Cheikh Ahmed Tidiane euh, euh, Chérif bi mu ñëwee gis ne la doon na ko mooy àddina bi yëpp mobilisé yow nañ pour xeex commencé ci ay mbokkam commencé ci tubaab bi fas yéene lépp luy bunti wërsëg ak bunti moyen ak buntu xam-xam ñu tëjal ko duñ ko bàyyi benn mu am benn possibilité pour jàng pour jàngale mu ne kon naa dellu ci taarixul yonent bi sallallahu alayhi xool fan la yonent bi sallallahu jaaroon ba génn ci lii ma jaar maa ngi gis xam nga yonent bi sallallahu li ñuy wax embargo état moom lañ ko njëkk a def ci kaw suuf te ni ñu ko defee moo gën a métti dafa xëy waa màkk yëpp dajaloo ne kii daal comme daf muy jaay dëgër bopp te mënuñ xamul nuñ koy def buñ ko rayee am problème essayé nañ ba sonn sax mënuñ koo rey léegi ni ñuy def mooy nañ koo embargo économiquement ak politiquement kenn dootu jëflanteeg moom mais kenn du ko jaay bu amoon xaalis di jënd sax bu la fayee luy jar dërëm bu la fayee junne bu ko jaay ñu tëj na benn saxaaba bu muy liir benn xista boo xam ne xista bu raglu la saxaaba benn saxaaba mu ne te booba dañoo nekk ci biir xisaar bi nekk ci biir embargo bi. jigéen moom kenn waxu ko xale kenn waxu ko waaye ponkal sax ñemewut a génn beru maanaam ànd moom kenn par mbooloo rek ñu dem jigéen ñi ak góor ñépp ku ci nekk da nga dajale sa famille ku ci booba booba douche yi maanaam dañ ko nañ pour jàngale di gën a leer toilette yi ci biir néeg ci biir kër yi boobu am ko boobu dem ci àll rek moom léegi nag comme boo beroo ñu ñu ñu faagaagal la ku nekk da nga dajale sa famille bàyyi ba guddi bu ko defee ñu def mbooloo ñu gën a am doole jiitu ñu jiital jigéen ñi xale yi yóbbu leen may leen ñu def ñu faj seen aju ñu wax biñ dee ñu waa ji mu ne benn saxaaba bi mu ne ma am benn bés boo xam ne damaa toog ba guddi ma bugg a tuur ndox ma denc ko ba guddi ma yokk ba ci benn ruq ma taxaw fa di tuur ndox mais ma ma gis ne su ma ndox mi li may taw bi may sotti fi muy sotteeku duut ci suuf. am na luy yëngatu dañ def benn prix boo xam ne xam naa ne lii dafa mel ni der la mu ne bi ma ko xoolee muy deru gëlëm boo xam ne dafa wow boobu maa ngi toog ñetti fan ñam dugg ci wagé mu ne billaahi deru gëlëm boobu moom laa jël dugal ko ci ndox raxas ko ba mu set ma xooj ko ba mu xaw nooy ma lakk ko lekk xam nga bu fekkee ne nit loolu am na kon ku daj tumuraanke ci ci ci dara ci liggéeyu islam jox ngay mer da war a sant yàlla mu ne bi ko Abdou euh, Serigne bi naa bi njëkkee dóor dóor bu métti ba mu bu métti waaw mu ne ah man day tey jii bàyyi moom moo fi gën a fu jàng waaye daal ni mu bañee pour tuur nit surtout tuur deretam tey daal ma génn daal wala mu toxal wér ba beneen sëñ mu ne mu ñëw bàyyi na ko doom lii lan mu ne ko yow gis nga li ma naar bi def pap mu ne ko eh, doom santal yàlla yow mi nga xam ne am nga léegi tu alquran dama nga jàkk mu ne mu xam ne nag fi ne caaxaan loolu mooy loolu mooy loolu mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la daj ci xam nga moo tax ñuy sonal fii nit ñi fii naan ay jéng xale beeg nangam ak nangam xam nga vraiment man débat dama cee bëgg a dugg parce que dafa dafa dafa soox trop daal te wax nañ ci wax ci wax ci wax ba pare su fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ njëkk bare su ma xaw naa su ma roxo bi xaw naa dem ngir alxuraan kon keneen ku njett ngir alxuraan da ngaa war a di bàyyi mu ne keroog ba nga xamee ni ci xare ba yonent bi sallallahu nañ ko ba mu nàcc mu ne nàcc boobu li muy firi mooy képp ku nàcc ci yoonu diine rek am nga garaatu yonent ko sonalee mission na sant yàlla waaye Cheikh Ahmed bi mu ñëwee daf ne loolu jàkka ci moo doonoon ëmb saxaaba yi ëmb mbooloo ñuy dajee ca jàkka ja jàkka ji représenté barab bi ñuy jaamu yàlla représenté daara yi ñuy jàngee représenté école bi représenté euh, maternité ba ak euh, euh, kii ba nu ba kii lay bu wax dispensaire ba représenté sax place bi nga xam ne fa la armée bi di di di di di di di di lépp lépp mu ngi ci biir jàkka waaye nag xam nga ne bu demee ba màgg nag. ci lañ yaa ko am man-man am ci lañ koy détaché lu nekk ñu utal ko mu bokk mais booba mi ngi junj la lépp rek ci biir jàkk ji la bokk programme jàkk ji la bu ko defee nag Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane bi mu ñëwee moo tax mu indi zaawiya am nga ci diine ji maanaam lu nekk nit dafa war a am curiosité surtout élèves yeeg étudiants yi nañuy laajte lan moo tax masjid lañ daan wax wala masjid jaame wala masjid rek mais lan moo indi zaawiya mais nit dafa lu tax tijaan yi ñoom zaawiya la wax te ñu liñ miin mooy zaawiya amul ci téeru njëkk yi am ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam baatu zaawiya amul ci ja masjid masjid dañu am masjid jàll lu tax baatu zaawiya bi ñëw zaawiya mooy lan mooy ne jàkka la joo xam ne daf cee am benn ruq soo xam ne dañ ko réserver pour képp ku néew doole soo ñëwee amoo loo lekk di fa fekk loo lekk ñi am doo ñi am am lu ñuy joxe foofu lañ koy joxe ji duñ jox miskin bi directement mais dañ koy yóbbu foofa nga xam ne boo fa demee la ngay lekk doo xam ku la ko jox donc ki ko joxe dana ko wóor ne ko yàllaa koo tax koy joxe parce que xamul sax ki mu koy jox waaye ki koy jëli tamit du yëg ne jiw moom moo ma ko jox mais dafay xam ne yàlla rek ko di fa fekk ku la mën a di fekk koo xam ne boo galee ci diine mu dañ fa fekk koo xam ne boo buggee boo bu sëy bi amee problème boo fa demee ñu waxtaanee ko ba seet ñu koy lekkee dañ fa fekk koo xam ne tamit maanaam programme sëriñ bi bi nga xam ne moom la bëgg a jàllale boobu internet amul téléphone amul dara amul waaye seetlu leen leen jamono bàyyi téléphone téléphone yi bëri téléphone du néew internet kenn waxu ko whatsapp amul réseaux sociaux yi dara am ci booba te booba bàyyi lépp lu mu am comme programme balaa bés ba képp ku aju ci moom da ko ak lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw loolu du ngeen laajte lu ko tax daa foog ne affaire bi karaama rek la. karaam sax dañ koy organiser bu ñu ko organiser woon mu soppeeku ñu ko organiser woon mu soppeeku karaam kasara lay doon loolu li ko waraloon mooy muqaddam yooyu ak zawaaya yooyu ak njiitu zawiya yooyu ñoo nekkoon ne information yi war a jàll ak programme parce que xam nga nit ñi dañuy wax rek ne média baa fi loo bëgg a def def ko ci média mais am na loo xam ne ci média la ko nit ñi war a yëgee wala boog am na ñu war a yëgee ci média mais am na ñoo xam ne waruñu yëgee ci dañoo war a yëgle ci média mais waruñu yëgee ci média parce que bu fekkoon ne ci média bi lañ koy wax kon sorti na ba pare wala boog ku ko bëgg a contrecarrer mën nga ko contrecarrer mais li nga xam ne dafa war a nekk secret bi dernier minute il faut ay kilifa ko koy jox kilifa ku nekk téye ko moment bi nga ko war a wax mbooloo mi mu wax leen ko fekk kenn yàqu ko weesu lii moo doonoon moo doonoon moo kenn du kenn du mooy rek ci tënk bu ma la ko waxee bàyyi bi mu tabaxee école bi. école boobu ma doon tudd léegi dafa ne keroog bi ñu ko ubbi daf ne attention bu kenn wax ne école lu bàyyi di école su du suma école suma école lu bàyyi la man Baye Niass mii ngeen gis ci école bii laa jàngee su ma mag Baye Khalifa ci la jàngee Alhaji Mouhamadou bi ci la jàngee man defuma du may moderniser ko bàyyi leen baat bàyyi xel ci baatu moderniser mu ne man defuma lu may dëppale ak jamono mais école bi ci laa jàngee mooy dono gi ma jëlee ci moom la kon dëppale ak jamono mooy mooy mooy moo tax ñëw waaye bii loolu amee nag nga xam ne maanaam yonent ci jàkka ji ci la jaaree woon ba ëmb diine ji ba sànku ba kenn mënu ko attaqué parce que doo dem ñememoo dem attaqué jumaa yi ba pare yi tamit nit ki jàkka ji dana ko xamal ne li muy def. du rek pour du ko dugal sa du rek pour ba nangam waaye daf ci daf koy def ngir yàllaay kese kese kese kese te martaba boobu moo gën a kawe loolu moo indi woon Cheikh Tidiane tamit indi zaawiya Tidiane yi indi zaawiya zaawiya bi loolu tax jàkka la waaye nag jàkka la joo xam ne moom boo ko demee di fekk ku la mën a jàngal di nga fekk sax léeg ku la mën a faj di nga mën a fekk ku la mën a orienté ci lépp loo xam ne

yàlla am na malaaka yoo xam ne bu àddina bi bu ba léegi ñu ngi sujjóot te dañuy continuer di sujjóot ba àddina bi jeex am na ci ñoo xam ne ñu ngi rukkoo lu jiitu àddina dañuy continuer di rukkoo ba kon yàlla manqué wut ku jaamu waaye nag su fekkee ne ñun forme jaamu boobu rek lañu war a def dugg ci xalwa yi rek dugg ci kii di fanaan aras ak di nettali yu kenn xam kon bu boobaa nañ dem rek soxla ko ay malaaka jarul ñu ñu ñu ñëw ñu ñu doon ay mais ñun mooy koo xam ne dafay def dégg naa Cheikh Moustapha Guèye euh, benn waay tontom yu neex yooyu benn waay ne ko waaw man damaa gis ñoo xam ne heure bu nekk dañuy jënd ay càngaay def préparé pour ne teg ko fi de buñ ñu de waaw loolu lan na ne loolu sax na parce que ay borom xam-xam koy def ay nangam nangam mais dafa am ñoo xam dañuy dugg ci luñ xam yow da nga bàyyi ñi ko ñi koy def xam li tax ñu ko def ñu def ko yow ba lu ci seen mu ne ko xam nga li xew mooy booy dugg dëkk nit soo dee liñ lay def xamoo ci dara dëgg dëgg ñun nañ def liggéey comme ni ñu ngi waaw loolu mooy coow bu ko defee nag bi bi loolu amee zaawiye taxaw bu taxutoon nag zaawiye yooyu colonialiste yi ba fa mu war a ba pare ànd ak te te du siiw parce tubaab bi lu mu ñeme ñeme ñeme wutul ci biir gàll ne dafay dafay kii gàll. ñii ñu ngi si biir jàpp ñii sikar ci biir sikar soofu programme yëpp ci lay jàpp loolu moo doon wute biñ demee nag ba jamono ji yàgg loolu noonu ñëw loolu moo indi daayira yi xam nga léegi tey nga xam ne tax na commencé foofu gis nga daayira yi maanaam prolongement wu zaawiye rek la daayira daayira prolongement wu zaawiye yi zaawiye daayira bi lu muy jëlee. mooy koo xam ne dafa dem ci sëriñ bi tar di fa jàng di fa tarbiyu mu préparé ko jàngal ko ba pare defar ko ba jàpp ne kii am nga bàyyi dafa wax lu doy wax bàyyi bi mu feeñalee faydaam bi sept ans après rek la waaj di dem màkk bi muy dem màkk dafa bind ne keroog Cheikh Mahi Cissé mu ngi koy fàttali fële ca ca ca kii ca Dakar muy lu dëggu bàyyi dafa bind ne maa ngi dem màkk fayda bi amul lu muy juróom-ñaari at waaye maa ngi dem màkk bàyyi naa fi góor ñoo xam ne bu ma deewoon ci aj ga lépp nit doon ut ci man boo ñëwee da nga fekk def naa ko ci ñoom mën nga ko jëlee ci ñoom gis loolu mooy bi mooy sëriñ bi la bi la def muqaddam daf ne man nit ma préparé ba mu nekk ci man man tamit préparé naa la ba nga xam ne ku mënutoon a accès ci man bu accès ci yow jox lépp loo xam ne bu accès ci man bu ma ko laajee ma lii ko mooy taxaw ko def waaw léegi nag muqaddam boobu ndax doon gi mu doon muqaddam dafay tax mu nekk benn malaaka boo xam du lekk baax gi mu baax dafay tax mu nekk mu nekk koo xam ne soxlawul jabar soxlawul doom soxlawul kër soxlawul dara ci kaw asamaan lay fanaan nit la rek pour bañoon nag yëf yi jaxasoo moo taxoon ñu ne muqaddam boobu tamit nañ ko créer daayira daayira bi du taalibe ñoo koy créer luñ ci jublu mooy benn taalibe yi di xamante di yëgante seeni problème di mën di taxawuwante waaye ki leen féetee ci xam-xam yi tamit ñu mën di ko dimbale ba mën a continuer di jàngal yi rek bu defee nag loolu mooy mooy mooy mooy moo doonoon daayira lu tax bàyyi waxoon na ci ansaan bi ne dellul ustaas ko wax xam nga dama leen di faral di ne euh, bàyyi loolu mu def noonu jël benn lettre bind ko ci arab jox ko ustaas Braham Diop ne ko jàng maa ngi toog ñoom euh, kàngam yëpp ngi toog ñi toogoon ñan la Serigne Aliou Cissé Serigne Mbaye euh, ñoom ñoom ñooñu noonu kàngam yooyu ñoo dañoo dañoo dañoo soxla ku leen firi arab dañoo maîtriser soxla ku leen du firi nga soxlawul bàyyi tamit lim leen bu ko wax ci arab man leen koo wax mënoon naa bind lettre rek jox leen parce que dégg nañu arab wala mu ñëw waxal leen ko bopp wala ñu liir lettre bi rek sax yem ca waaye li tax mu tànn oustaz ne ko firil lettre bi moo lay war a xamal ne bàyyi am na lu jublu ci loola mooy ne kon booy ci lettre bi commentaire ya ci oustaz def bàyyaale ko parce que kat da loolu tax bàyyi ko mu jàng lettre bi parce que lettre bi moom nas bi rek euh, ak kii bi teg si noonu jarul firi parce que arab yu yomb yu leer la te ñi ngi koy jàngal dégg nañu arab mais lam ca yokk ca départ ba ne bàyyi dafa bugg ñu nosee ansaaru diin ni nga xam ne noonu la ñuy nosee mbooloo yu mag yi yitee àddina baat yooyu dafa tax américains yi wax ne état la wax nañ dégg parce que ci objectif bàyyi loolu la mu ne nañ ko ni ñuy nosee mbooloo yu mag la wala sax ëpp na état mu ne bàyyi bi muy def loolu dafa fekk ne gannaaw bu demee ba bokk ci rabitatul alam islami nekk fa membre fondateur bokk ci ay mbootaay yu bëri ci adduna bi ci lañ ñëw nag ne waaw man ma nekk international di bokk ci mbootaay yu bëri ci adduna bi fu nekk fu ñuy sosee mbooloo ci lislaam rek oo ma ma bokk ci su ma noppee ci loolu organiser mu suma mbooloo bi bu ma demee mbooloo bi dootuñ nekk international mu ñëw nag mel ni ku dem tukki gis ko ay expérience ci sa département bi nga nekk ci sa liggéey bi nga nekk wala ñoom euh, oustaz euh, bànd ñii wala ñoom nangam demoon gannaaw boo demee ci américain yi nanga nan den ci université yi gis fa beneen façon jàngale ak beneen façon méthode boo xam ne dafay renforcer sa sa sa sa jàngal sa jàng nga indiwaale ko daal di ko dugal ci biir méthode loolu ko defee kon loolu commentaire yooyu dafa jar a bàyyi xel mooy la lu bàyyi lu bàyyi jubluwul ci loolu mooy nam nekkee membre boo xam ne lépp luy yëngatu ci bi ñu oo ko kon fi bàyyi jógee ñun suñ noseewu suñ noseewoo Madina dana nekk mbootaay boo xam ne fu ñu yëngatu ci islam boole mais suñ noseewut nag dafay daal dañ ko daal di ñàkk wax ji leer lii moom lii mooy lii mooy affaire waaye nag bàyyi mu ne bu fekkee ne danga maa laaj sukkandiku ci alquran danaa la wax ne la delluwaatal ci alquran jëm ba ca romb sax mu doon bisala boo ko yàlla yónnee lu mu def dafa ñëw taxaw ci pénc bi ne man ansaari ilallah déglul nag li may wax xam nga alquran waxinam dafa jar a jàng parce que alquran waxinam bokkewut ak yeneen waxi xam nga yonent yàlla Isaa daf ne man ansaari ilallah xam nga waxut man ansaarullah maanaam yonent yàlla Isaa daf ne ku may dimbale ci liggéey ku may dimbale man ñu jëm ci yàlla wala boo kuy ñëw ànd ak man ñu jëm ci yàlla lu tax waxut ku may kuy dimbale yàlla rek directement lu tax waxut kuy dimbale yàlla rek directement waaye daf ne man ansaari ilallah ku may dimbale man ci xawaari yu nii war koo tontu ne ko waroon koo tontu ne ko nahnu ansaaruka laa ñun ñoo say ndimbal jëm ci yàlla waaye ñoom dañ koo effacé ne ko nahnu ansaarullah ñoom lim leen waxee tontu wuñ ko def ne ku muy dimbale man ñoom waxuñ ko ku lay dimbale ñun ñoo lay dimbale ñun dañ ne ko ñoom dañuy dimbale yàlla xam nga loolu li muy tekki ci gàttal mooy moom dafa bëgg a wane ne dox jëm ci yàlla mënta ñàkk kilifa mënta ñàkk giddi bu am ndigal mais bu buñ xasee ba ba ndigal dugg ba yëf yi dugg rek kilifa bi sax génn na ci yàlla directement moo fay bu yàlla tafay moo tax may wax lépp di ko wax taaliba yëpp mais di ko wax muqaddam yeeg ñi jiite ñëpp wax boo xam ne sëriñ Mahi daf ma ko wax muy wax bu am solo mu ne taaliba yi bàyyi surtout ñi jiite mbooloo nañ bàyyi xel ci bàyyi aw sa ba dafa jógee Nigéria avion boobu bëriwut amul sax train bu dugg muy dox Issa Karab muy nekkoon Khalifa Baye te génn àddina ci at ci daaw bi muy ñëw fii ci Baye di dugg oto di wàcc di dugg saxaar di wàcc Issa Karab yu moom baayam ñoo àndoon baayam ma nga dee Burkina Faso ñuy suul fa la feebaree dee accident moom mu continuer accident bi mu accident fii amul benn dërëm mu am benn waay boo xam ne daf doon jaay ay fulaar boobu fulaar dafa xew jigéen ñi fulaar rek lañu jënd ko moom amul fulaar yu mu jaay waaye daf koy ràmp te dem fekk pour benn waay bu daan indi fulaar di ko jëlee Nigéria moom mu jël ko jaayal ko ko jox ko xaalisam am ci dara moom mu jël ko am beneen waay bu ko ràmbuwaat ci moom ba pare jaay ko lekk xaalis bi dem mu toog nag di waat ci yàlla mu ko gisee rey bi dee mu ko gisee rey am ci bàyyi nag bii mer na mer boo xam ne te moom am caaxaan damay ragal waa ji dugg fii mu rey ko bu ko defee coow coow coow coow ñëw bàyyi kooku mu ne ko yow looy coow mu ne ko nangam nangam nangam mu ne ko la garanti ne da nga am ba alal sonal la da nga waaw mu ne ko bàyyi waa ji dana sori mais Isaaxa Rabi moomu ak ñi mel ni moom ba ñëwee ci bàyyi dugg foofu seen bàyyi dee ci àll bi ñu ñëw. def ak ci àll bi def nangam ba ak see ci bàyyi bàyyi lu def ak ñoom daf leen a jox ay askar ñu commencé si kar matul ñetti fan ñu fëgg seen dënn ne ne ne ne dara am dul yàlla ñu ne bàyyi nag ñu ne bàyyi xam nga loolu programme boobu noonu nga ay at sa bàyyi a amut yow nga bugg am yow doo indi nit ñi problème mu ne ñu ne ko nahnu ansaarullaah ñun ñooy dimbali aamannaa billaahi wa bi annaa muslimuun foofu ñu tamit baat yooyu dafa jar a bàyyi xel ustaas ñun ñoo lay dimbale jëm ci yàlla ñun day gëm nañ yàlla waaye nag dafa am lu lu des gannaaw buñ gëmee yàlla dañoo bëgg kilifa bu ñu seedeel ci kanam yàlla ne ñun gëm nañ yàlla ndax yàlla dafa dafa dafa sox dafa gëm wala dafa dafa dafa gisul yàlla ngi gis waaw gannaaw boo xamee ne yàlla ngi gis lu tax yow ngay soxla ku la seede ci kanam yàlla ma ne loolu ci gàttal beneen boo ci duggee beneen conférence lay doon waaye li ma li ci yàlla jublu mooy lu am kilifa man yàlla soxla ko waaw demal rek léegi France wala Dakar wala fu mu ci doon ñu ne la ab euh, portable bii 3 millions lay jar 500 mille lay jar 800 mille lay jar 900 mille. nga jënd yaa ko jëndee Amérique wala nga jëndee France ñëw Sénégal xeet Sénégal ne man nag réseau Sénégal yii bu ma ci branché suma téléphone bi nga xam ne huit cent mille lay jël neuf cent wër ba bëgg a dee doo wax ak kenn. daal di sa téléphone rek di ko ci benn waaye doo wax ak kenn kon. nga bugg rek ci diine nga ne da ngay dem fu ne am lu ne te amul kilifa tegoo ko fen lu may ci sa bànneex ba kenn ak yi bu sotti du dem da ngay sonal nit ñi rek coow li nag mooy boo doon problème mais nit ñi ngay sonalaale mooy problème. <laughs> sëñ Aliou Cissé Abdou Fatah ba mu ñëwee rek fekk oto bi gaari rek mu taal rek mbëkk miir bi ñu ñëw nag Abdou Fatah di dama mbëkk miir bi mu ne déet Abdou Fatah moom dee am gi jaaxalu ko waaye nit ñi na la rayaal man moo waaye washhad bi annaa muslimuun baaxul bàyyi leen ko xel yonent yàlla Isaa gars yi ne ko ñun ñoo lay dimbale danañ la jox suñu bakkan yi danañ la jox suñu alal lépp luñ mën dañ soxla mooy buñ taxawee ci kanam yàlla rek nga seede ne ñun ay jullit lañ yàlla soxlawul pour seede ne ay jullit lañ waaye mu seede ne ñoom ay taalibeem lañ ko ci liggéey nañoo ko moom ngir yàlla loolu yàlla mu ñu bëgg wane ne nañ dem ci mbooloo waaye nag am na sax beneen beneen hadith beneen aaya bu koy gën a faram-fàcce xam man aaya bi man alxuraan daf may yéel dama ci dama ciy taxaw ci kanam wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun waxeen boobu man dafa xaw a jaaxal dafa mel ni lu simple la mais lu doy waar yàlla mu ne jëf leen góorgóorlu leen ngeen jëf bu ngeen jëfee yàlla dana gis seen jëf yi yonent bi dana ko gis mbooloom bi bi dana ko gis xel ci loolu xam nga man su yàlla commencé woon ci ne mbooloom jullit mi danañ ko gis yonent bi ko yàlla gis ko loolu laa gën a mën a dégg ci wax bu doon waxi nit la parce que dafa war a jóge ci kaw dem mi ngi mel ni nga ne euh, ci campagne bi nga ne waaye yëngatu leen ci wàllu campagne bi ba gouverneur gis leen ministre bi yëpp ko président yëpp ko xam nga loolu moo logique waaye jëf leen président gis ko ministre bi gis ko euh, gouverneur gis ko xam nga loolu dafay dafay doy waar président bu xasee ba gis ñoom seen gis gi amul njëriñ ma ne nag ma taxaw ci loolu nag di wax ne alxuraan foofu te waxal ko lu tax mu wax ni ma kon ndekete li ci yàlla di ko wane bokk si mooy euh, maanaam amalu jamaa yi liggéeyu mbooloo suñ boolooyee ànd takkoo liggéey kilifa gi nangu suñ liggéey boobu yàlla mën na dégg la ñu wax aha loolu liggéeyu mbooloo la ci yàlla di la ci yàlla di wax mu ne wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yàlla mu ngi gis seen jëf waaye jëf ci gën a bugg ci yéen mooy jëf ci nga xam ne rasulullahi moom ngeen koo seedeloo waaye rasulullahi tam jëf ci gën a bugg mooy jëf ci nga xam ne ngeen koo defandoor boole ko def ko def ko yëpp mbooloo mais kenn du dégg-dégg bi baax na noonu noonu noonu nga gis ne programme l'islam sax yépp fi muy commencé mooy fan booy dugg ci islam looy wax buñ la tegee ci kanam ne la euh, euh, nga dama bëgg jël islam liñ lay njëkk a sax mooy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy programme yu gudd waaye nag booy wax ashhadu ashhadu mooy man maa ngi seet ci l'islam benn yoon boobu ngay wax man boo xasee ba wax ashhadu ñu sala l'islam nga ne waaw tout de suite heure yi julli jot booy julli jàng fatiha looy wax iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin doo ko wax ci anamu loolu li muy tekki mooy nit ki munta ñàkk nekk individu parce que nit la waaye nag foog mu am engagement personnel foog mu defar boppam mais su rek maillon la boo xam dafa war a jox ci yeneen maillon yi ñu ñu dem pour pour société bi a taxaw parce que ñun kat jàng nañ fi suñ dund yi ñii ñëpp ko kenn ku nekk bi nga bëggee yokk loo jëkkër da ngaa dem ci jabar bi boo amee doom ci nga mën a am sët demal nag nga ne man sama kër danaa bëri te te te du ma du te du du nekk ay surga nijaay mais du def xam am na benn tubaab bu wax lu am solo keroog mooy ñooñu nga xam ne nee ci tubaab yi duñ am doom duñ ëmb mais dañuy dem jël euh, mën yu jàmbur ñu ñu may def wala ñu def ko jigéen mu am leen doom ñu ne ñu ne doom yooyu amuñu bàyyi mu ne yéen da di waxee. yéen foofu leen seen bàyyi ngeen di wax te eh, waaye moom comme mën nañu nit lañ jël mën nañu ba mu jël tey mooy bàyyi yéen di jéggante da boo xam ne yow yaa ko war a def pourtant boo toogoon sa kër julli dana baax waaye yàllaa ngi commencé di jàngal nit yëpp mbool di nga jullee sa julli di baax mu ne la salaatul jamaati afdalu min salaatil fajri bi sab'in wa ishrina daraja yaa ngi am marchandise boo xam ne boo ko jaayee léegi ñu fay la ci dërëm waaye am na boo ko demee ca mbooloo ma dem ca marché ba soo ko fa jaayee am soixante ah soixante pour cent ci de kon boo amee xel nooy def loolu yëpp mu jàngal ne la defandoo ak nit ñi ak mbooloo mi foofu la bàkke bi nekk ngay dem ca jàkka ji di julli xam nga jàkka dafa doy waar parce que jàkka encore une fois dañu ne mooy néegu yàlla ci kaw suuf boo demee ci téere yi téere fekk yeeg téere yi dañ lay wax ne la julli bu ñu lay présenté julli dañ naan la rendez la boo xam ne yàlla moo ko tëral tëral moo la tegal rendez pour pour recevoir xanaa kon bu fekkee ne yàlla moo la tëral rendez ci biir kon soo fa demee yàlla nga ko waroon a fekk mais ba nga fa demee doomi aadama nga ko fekk loolu yi tamit am na lu lay jàngal ne la liggéey bi ngay liggéeyal ngir yàlla li ci ëpp solo mooy li ngay defal doomi aadama yi ngir yàlla moo tax ngóor ba ba ba ba tuub ba mu te neexut yaay ji neexut ni ji di ji mer lool gars yi nag mel ni kuy kokkuli di jaay ji may ngóor biyee màkk ñëw naan ñëw na ko ngóor dafay ngóor ñëw na ko damay dem màkk nijaay ji di kii rek day funki rek ngóor dem màkk ñu ñëw ne ko ah ngóor de dee na te buuxante ko mu ne ay moom waxoon na ne dana dee yàlla jii di fekk nit ñi seen biir kër yi di leen rey moom mu dem fekk ko gën mu ngi dem na dee waaye da ngay gis jàkk yi yow jóg nga dem léegi dugg ci julli mbooloo ci jàkk yi waaye yemuñ ca bu buñ demee ba ci kanam lislaam ne la maanaam bu bu àjjuma jotee léegi dañ tëj jàkka yi dem ci juma imaam yi nekkoon ci jàkka yëpp tëj seen jàkka yi dem ci juma loolu yëpp mi ngi wane ne non seulement booloo ak organisé ak bennoo mais bennoo ci ay état mooy yow da ngay defar sa bopp dugg ci mbooloo mu ndaw bi mu jàkk ji waaye am na beneen mbooloo boo xam te du jàkk ji foofu la war a jox nga ne ndax foofu la yem mu ne la déedéet su ak jotee ñii yi dañuy tëj jàkk yëpp ak jumaa yëpp def ca Kaaba ga nag dafa doy waar parce que Kaaba ga mooy mooy place boo xam ne mooy benn place boo xam ne da julli nit jàkkaarloo di julli nga di ubbi seen seen seen ñaan bi lii baax loolu te lu ko waral mooy symboliser bi muy symboliser benn moom ak bokk jubluwaay loolu rek la Kaaba gi bu dutoon loolu ba ba Sidna Omar dafa ñëw ba ci àgg xajaru la sot mu di ko fóon ba pare di xoloog moom naa ko maa lay fóon waaye xam naa ne xeer rek nga mënoo jëriñ mënoo waaye nag bu loolu yëpp pay nag programme islam am benn boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bàyyi daf ko daan firi te wax ci lu am solo loo xam ne du nit ñi dégg parce que alquran dara simple ci mu ne wa maa ja'alnahum jasadan laa ya'kuluuna ta'aama wa maa kaanu xaalidiin képp ku jullit war na cee bàyyi xel yàlla nee na bindu ma benn jëm boo xam ne foor na wala mu am secret wala mu màgg ba mën a dund te lekk bind ba benn jëmm boo xam ne foor na foor na ba du dee bàyyi mu ne ñaari information yi bàyyi yi yàlla joxe yépp benn du ci information parce que yow yaa gën a xam ne mënoo lekk mënoo ñàkk a xam ne dee parce que bés bu set maanaam day taal kon xam nga li yàlla di wax xam nga lim lay wax la mu ne lim la bëgg a wax mooy comme xam nga ne mënoo ñàkk lekk li ngay lekk na nga ko ba ut ko dignement ci sa ñàkk. bopp bul bul bul jaay sa bopp ngir ngir ngir loole bul jaay sa diine ngir loole comme xam nga ne mënoo ñàkk a dee na nga fexe ba booy taxaw ci kanam yàlla nga yóbbu fa loo xam ne buñ ko seetee mu mën mu mën laa mën laa mu ne loolu la yàlla bu ko wax parce que jubluwut ci informé la ne mënoo ñàkk a dee parce que yaa gën a xam ne mënoo ñàkk a dee coow li nag mooy am na benn kaset boo xam ne bëggoon naa xam naa ne daal foog ñu utaat ko tasaaree ko ci daayira yëpp. danaa ko ut loolu moom engagement bu jël su ma amoon naa ko danaa ko ut fépp fu daayira nekk fépp fu fédération nekk danaa ko fexe ko yónnee ko ñu dégg Ahmed Bassirou Kounta rahmatullahi alayhi moo doon interviewé Baye gannaaw boo xam ne ne Baye dafa def toolu ceeb boo xam ne bu yéeme xam nga Baye déglu leen nag moo wax leen tey daanaka bu ma ko waxee ba pare rek jàng leetar bi rek damay daal di tëj moom ci kaset boobu ci la wax ne man Baye Niass bokk naa ci sëriñ si nga xam ne mbayam gerte ñoo ko tàllal ci saalu parce que bu njëkk ba mbayam gerte xewutoon tubaab bi mu fi indee gerte ñu bëri xamuñ ko ñenn ñenn ñi ñoo ko daan jël di ci bay tuuti pour am liquidité parce que boobu xaalis nii bëri amut borom barke yu mag yi rek ñooy ci yi ci des ay dugub la am ak kii boo soxlaa boo amee euh, loolu bu nga jënd dem ci keneen lam am ngay échanger xaalis bi bëri mu ne man Baye Niass bokk naa ci sëriñ si nga xam ne ñoo njëkk a jël ay espace yu mag di ci bay gerte tool yi rafet ba nga xam ne ci tubaab yi dañ daan ñëw di ko yéem di ko seet fekk na maam Alaaji Abdoulaye mi nga xam ne mooy mooy mooy Baye mu génne ci école am maam Alaaji Abdoulaye nee na man Alaaji dudd naa ba dee musuma lekk asaka kenn musta lekk asaka sama xam nga wax boobu noonu wax da koy da ngay jéem ci biir pour xam ko lu tax muy bàkkoom su lekk asaka ku demoon ba ñàkk ba sës ci asaka da nga ko a lekk waaye lu tax mu ne musuma lekk asaka mooy daf laa bëgg a wane ne man dama liggéey ba man may joxe asaka bu ma àggee foofu asaka dootuma ko mën a lekk lu mu ne at bu jot bu bàyyee ba pare dina génnee asaka teg ko ba tax na sax réew mi yëpp dañ daan def ku ci génnee asaka ne nañ ko yóbbul alaaji parce que moom moo gën a xam fan lañ war a defar mujj gi ñeneen ñi di bay seen tool yi ko indi ngir maandu bu maandu ak xam bu mu xam masaalikul zakaat dana génnee ci boobu nee naa leen xaalis amul dana génnee ci dugub jéeg kii bi mbay mi loo xam ne pour sérif yi sérif bu ñëw ci la lay jox addi dana ci génnee loo xam ne mbokk beeku moom mbokk mu ñëw héritier wala ku néew doole mu may la mais dana ci génnee loo xam ne pour miskin yi nga xam duñ bokk la duñ bokkoon ci day lii yëpp dana ko génnee ba pare sàq mi des fi loo xam ne ba nawet ci déwén bi di ñëw benn tali bi du yelwaat bàyyi leen mu def tool gerte bi muy benn mu ne tool yi suma tool yi gerte yi ci jamono coloniale si tubaab yi dañu 37 waaye bàyyi yemu ca mu def toolu toolu ceeb boo xam ne ca Ross Béthio Yakubu Gowon président Nigéria dafa jugee Nigéria ñëw fii seet ci Senghor Senghor di ko wax ne ko Sénégal dafa jublu ci wàllu mbay ak wàllu fexe ba li ñuy bay ñu di ko li ñuy lekk ñu di ko bayee ci réew mi dox na ci ay jéego yoo xam ne waxtaan ceeg moom ba di ko bugg wan nag ay tool yoo xam ne mooy témoin ne senegal mi ngi dox ci wàllu mbay xam nga ban tool la ko wan tool yi bàyyi li may ay ay de kaset kii yaa ngi fi image yaa ngi mu wàcc fii jël ko hélicoptère yóbbu ko ba Ross wàccee ko fa président Nigéria pour lan pour mu xool tool bi nga xam ne mooy wane ne Sénégal mi ngi dox ci wàllu autosuffisance alimentaire ñun bu ñu amee sëriñ boo xam ne président Sénégal dafay tiitaru ci beneen ci kanam beneen président ci wu Sénégal te liggéeyu bàyyi lay joxal pour ko kon nañu xam suñu bopp ñu koy ñun am nañ beneen mission ak leneen lu ëpp li nga xam ne moom la ñu waaye Baye moom moo nekk ci làmmiñam ne gouverneur yi Kaolack bi jamono boobu moo ko def bàyyi comme Saalum Saalum nga nag te yaa ngi bugg Saalum Saalum tamit roy la sa tool bu mel nii nga def sa tool euh, fële euh, Ross Béthio def ko ci Kaolack pour Saalum Saalum tamit mën la cee roy mu ñëw kër ay rek def fa beneen tool boo xam ne toolu ceeb la boo xam ne tool bu yëgal keroog biñ koy góob euh, kii ministre kii li ñu l' agriculture agriculture ñoom président assemblée nationale député yi nangam ak nangam personnalité Sénégal yi yëpp ak taalibe yi ñëw Ahmed Bousso Kounta ne ko waaw yow sëriñ bi man da maa da maa jox gis naa la ci jàkka ji ak diine ji ni ngay formé ak ni ngay tarbiya ak nit ak fi ngay yóbbu sa taalibe yi ci wàllu defar nañ ci wàllu yàlla da yéeme nag waaye ma gis tamit àddina bi nga di ci kër kër yi loolu loo ci jublu mu ne ko dama déggul baay mu ne ko ban baay damaa bëgg a jàngal taalibe yi ne suñ diine jii du diiney xaaraan du diiney wékku ci kaw nit pour mu yor du diiney xaaraan du diiney wékku ci kaw nit baat bi la bàyyi ñun sëriñ boobu lañ am mu ne looloo tax ma defar tool yooyu kon nag sëriñ boobu ku ko am boo xam nga ne yow am nga liggéey waaye nag ma yegg si nag léegi kon ci leetar yi dama koy tëgg rek benn leetar gi nii boo xam ne bàyyi daf ci jàngale ne mbir yi foog ñu organiser ko suñ ko organiser wu parce que bugguñ ko xaaraan yi mais xam nga ne bu fekkee ne organiser wul foog mu am ñu xaaraan parce que ñëpp mënuñoo amandoor lu leen doy ba duñ xaaraan xam nga xaaraan yi mooy lan xam nga baat yi tamit foog ñu du rek mooy nga dem ci beneen kër lekkee fa xaaraan buñ ko waxaan mooy nga dem foo xam ne ci temps normal waroo foo a dem du sa kër liggéey du sa kër bàjjen du sa kër tànta du kër maanaam du kër boo xam ne ci ci yoon boo amoon li nga war a am war ngaa dem foofu loolu mooy xaaraan mooy boo demee fi nga war a dem xaaraan xaaraan loolu nag mooy lan mooy taalibe bàyyi war nañoo organiser ba lépp lu taalibe bàyyi soxla dem ba mënu koo ñàkk ba mu war a ñàkk sagoom fekk taalibe bàyyi mën ko delloo bu ñu fexe woon ba taalib baay bu feebar rawatina muy kilifa rawatina muy mu xaddal am feebar boo xam ne ko war a yóbbu France léegi dañuy signé bi këyit rek ne nee nañ ko yóbbu mu ñëw kooku bu demee faju ji ba ñëw lépp lu aju ci moom lu ñu waxati ci pays bi kenn du ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy luttale ji te taalibe dafa war a joxe addiya te joxe addiya mënuñ koo wékk rek ci ñu am daal mais ni mu man a doonee mooy ñu organiser ko bu ci ñëpp dugalee seen loxo rek dafay daal di bëri bu ko defee yàlla buy fay ñëpp lay fay. lettre la boo xam ne xaw ma lettre la xaw ma lu mu doon parce que bàyyi amul dégg nga mu ne mu ne mu ne gannaaw bu ma nuyoo ya umu janaaba salaamun وسلام تسليم لا لغو فيه ولا تأثيم يؤم جناب خازن الأسرار الربانية المحمدية التجانية li mu présenté sëñ Aliou xam nga Baye moo baax parce que moom buy defar taalibeem Baye mu ne man maay sëriñ boo xam ne bëgguma yar ko mag maanaam bëgguma yor taalibe mu continuer rek nekk taalibe bu ma yoree taalibe dama bëgg bu ëllëgee foog dem ñu xam ne kii sëriñ taalibe la woon waaye gën jaaree ci man Euh, mu ne maa ngi nuyoo nuyoo boo xam ne nuyoo bu sell la bu amul lenn lu koy lu koy ajabal ki may njëkk a nuyu nag mooy ki nga xam ne moom la yàlla dénk mu sàmm mbóot yi nga xam ne mbóoti yàlla la mu jaarale ko ci yonent yàlla mu dénk ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ma ko mu ne kooku nag man ma jàllal bi mu dénk ko mbóot yooyu pour mu téye pour mu dem seetal seetal lu gën bu gën a rëy bu fekkee ne boo nekkee taalibe Baay foofu nga war a mujj loolu foofu la coow bi nekk ba taalibe Baay loolu loolu la Baay soxla ci waaye fi mu commencé lettre bi moo doy waar mu ba pare rek daf ne tësanul xar lii may nar a wax si nii man Baay waxuma ko ci sama coobare bopp waxuma ko ci sama xam-xam mais pii ñu yàlla bi moo joxe ndigal pour ñu def loolu li pay yàlla bi joxe digal mooy lan fii jameekal ahbaar zukuran wa inaasa wa in kaana yowmu amali bustaani qariban yakunu fii wala budda min xutbatin baligatin ixtartu an takuna ala lisanika bi mahdari in amkan mu ne yow sëñ Aliou pay yàlla ba moo ma digal ne naa la wax ne na dajale taay bi ñoom ci benn barab dajale mbooloo ñoom mu ne su fekkee ne sama bésu bésu bésu euh, liggéey bi may liggéey ci tool yi bésu suma liggéey tool bi jege na ñu tànn ko muy bés boobu ñu dajale ñu def ko occasion dajale ci kare su fekkee ne tamit mu mënta waaye nag bés boobu dafa soxla discours bu éloquent man tànn naa man bàyyi discours boobu ma waxee ko sa làmmiñ waaye nag damay teew discours boo xam ne bàyyi moo ko sant sëñ Aliou ne ko na éloquent te damay teew di la déglu nga di nga di ko wax parce que noonu la ko pays ba santaane mu ne ko bu ma teewut rek sax li nga war a wax bu ma teewut suma teewut yëpp li nga war a wax taalibe yi mooy fal fal ta'muruhum bi shukri bi bi bi bi shukri lillaahi wal wasaa'iti baynahum mu ne ko su nit ñi teewee li leen di digal mooy nañ sant yàlla waaye nag kuy yi yàlla yi tamit nañ ci booleyaale gërëm waasitatu ak wasiila bi nga xam ne moom moo la yóbbu ci yàlla xanaa kon loolu wane na ne ku nekk ku nekk ku am sa muqaddam war nga koo fonk war nga koo jox cër bu man ci doon kenn waxul ne nañ bàyyi seen muqaddam yi kenn waxul ne buñ leen jox addiya kenn waxul ne buñ leen fonk parce que bàyyi mu ne booy sant yàlla nañ ci booleyaale wasiila bi nga xam ne waasitatu bi nga xam ne moo la jokkale kenn mu ne wa tubayyina lahum maa xassahum allahu bihi mimma lam mu ne na wax taalibe yi na nañ sant yàlla gërëm seen waasitatu yi gërëm seen muqaddam yi ak ñeneen ak seen sëriñ si waaye nag nañ xam ne yàlla jox jagleel na loo xam ne pënd ba sax benn tuuri yàlla buy dox jëm ci yàlla mas ka seen pënd boobu pënd ba rek mosu ko see kenn mosu ko see yéen nag yàlla jagleel na dégg nga de fa shatahaatu mu ne sa qablahum fa shatahaatu arbaabi shatahi maa xaama xawlahu maa xaw maa xaama maa maa xawla maa maa maa xaama xawla la zaaqa adnaahum maqaama sataxaatu arbaabi satri ma xaama xawla ma zaaqa adnaahum maqaama nee li nga xam ne moom la góor yàlla yu njëkk ya daan mos mu leen di tàggaleeg seen sago jegewut sax loolu la muy la leen di tàggale seen sago jegewut maqaama yi nga xam ne moom lañ am ñoom xawut a jege sax maqaama yi nga xam ne moom lañ am ñoom ay xaal la daf leen a dal daf dañ koo mos rek mu tàggaleeg seen sago yéen nag loolu tàggale woon sago ak euh, euh, góor yàlla yu njëkk ya yéen am ngeen maqaama yu ko gën a kawe te tag tàggoo tàggale wu leen seen sago kon war ngeen sant yàlla lu tax muruhum bi mahabbati ahlillahi jamii'an wa kulluhum maa naala shay'an illa min cheikh yi Tijaani radiyallaahu gis nga bàyyi ni muy ni muy ni muy ni muy modesté mu ne xam nga léegi la wax ne nañ sa nañ nañ sant ñi nga xam ne ñoo dox si diggante ak yàlla bu ñu sant yàlla mu ne nañ xam ne képp ku nekk ci tariqa bi lépp loo am rek amee wax lu ma ci sa sëriñ ci sëriñ bi mooy sant yàlla xam nga moom génn na ci boppam kon parce su fekkee ne logique bi mu waxoon la mooy da nga war a gërëm wax si baas ko kon moom nga war a kon ndax naan gërëm leen ma mais moom ci boppam génn ci boppam ne nañ gërëm sant yàlla loolu tamit beneen tâche la boo xam ne lu jar wala bu demee ni iqtidaay bi man saxibal mashaayix qablahu fii euh, dégg nga mu ne fii is nañ ni mu ne mënta ñàkk mukk nit ku am sëriñ nit kuy bugg a dem ci yàlla mu fexe ba xam ñi ko jiitu woon ci fonction ci ci dox boobu ak itte jooju mooy ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon ci ànd ak nit yàlla ak jéem a ut yàlla ñu ne ci jiitu woon nga xam seen histoire xam fi ñu nga roy leen ci loolu waaye nag nga roy leen ci ñaari yëf surtout nag ñaari yëf kamaal al i'tiqaadi wa salbil iraadati wa mu ne ñaari yëf nit war naa fexe ba xam ñi ne ci jiitu woon nga roy leen ci mooy lan mooy sa pas-pas ci sëriñ bi nekk pas-pas bu mat sëkk pas-pas bu mat sëkk bi sax bàyyi di ko wax mooy dafa mel ni euh, lii Golbert daan wax ne Sénégal bu xam kii gëm nañ yàlla waaye óoluwuñ yàlla la dafa bëri ñoo xam ne gëm nañ yàlla waaye loolu la bàyyi bu ko wax ne óolu bu gëm sëriñ bi dafa war a ànd ak óolu ko lu mu wax ne nii la rek nga xam ne noonu la mais léegi léeg mu wax ngay werante wala nga jàpp ne lii mën koo def ci sa xel mu xel mu rafet wala nangam nangam dafa koy wax ak nag selbul iraada ci mooy yow nga ci wàllu boobu nga xam ne ci nga ñëwee ci bi nga bañ cee am bëgg-bëgg sa bëgg-bëgg mooy lu mu wax ne waaw la nga ne waaw lu mu wax ne déedéet nga ne déedéet mu ne fa bil irtiqaadi yasluxu baatilul muridi walakin bil xidmati wal hadiyati yasluxu zaahiruhu mu ne taalibe tamit mënut ñàkk joxe joxe addiya ak di xëj ba ñaari ñaari yooyu noonu da nga ko war a def waaye nag waroo koo def rek nii nii ci ni la neexee waaye dangaa ngaa war a laajte ñi la jiitu woon ci bàyyi ñoom sëriñ Aliou naka lañ ko daan defee ñoom sëriñ Bay naka lañ ko daan defee ñoom lañ ko daan defee nga fexe ba xam ñoom maalam Kaaf maalam Sadi Kaafanka ak awsa yooyu ak naari ganaar ñoom misri naka lañ ko daan defee nga defee ko foofu nga nga am royuwaay mu ne taalibe bi pas-pas bu mag bi mu am ci sëriñ bi du ko boolee keneen loolu mooy defar baatinam waaye nag zaahiram li koy defar mooy joxe addiya ak këj sëriñ waaye nag wax fii lu doy waar mu ne am na wahum sahibuna bil itiqaadi wa naalu akbara maqaamin fi aqsari muddatin wa maa xadamu wala faalu gayraha wa lidalika taaxara naylu muraadihim zahiran falaw iltazama kullu waxidin minhum xidmatan yaduumu alayha wa awjaba li nafsihi alhadiyata bima amkanahu fi kulli zamanin la raaw inqiyaad al ashyaai zahiran kama raawahu batinan eh, ndax wax mu garaaw bàyyi mu ne am na ñoo xam ne bi muy départ ci mag ñi àndoon nañoo moom ci kaw pas-pas bu wér ak dëggal ko ak boolewuñ koog leneen seen baatin ci diggante bu gàtt àgg na foo xam ne benn góor yàlla mosul waaye ñooñu noonu seen ñàkk joxe addiya ga ak seen ñàkk joxe xidma ga ñàkk xidma ga tax na seen baax seen zaahir ba euh, sooxe mu ne su fekkoon ne kenn ku nekk ci ñoom ci waral na boppam addiya ak xidma boo xam ne moom dana ko def képp na bu ko taalib bi yëpp àndee def rek dañuy dal di gis ne ni seen baatin gaawee ak ni mu rafetee seen zahir tamit ni leen baatin uyoo nangul leen zahir tamit moom la leen di uyoo nangul leen loolu dégg nga mu wax maanaam li mu bugg a wax mooy bàyyi nee na bés bu taalibe yi àndee ñoom ñëpp di defandoo ku nekk rek di joxe la nga man di joxe la nga mën nag su ko waxee rek organisation ñëw na mooy ne boo ko bu organisation ñëw boo ko jox boo ko jox mu ne ku nekk di joxe la nga man te nekk loo xam nga koy waral sa bopp wala buñ ootee tool nga dem wala buñ ootee xidma liggéeyal bàyyi nga dem bu ko taalib bi yëpp defee rek seen baatin bi nim kawee ak nim gaawee ba àddina bi yëpp nangul leen ko seen zahir bi tamit noonu zahir tamit noonu la leen di nangul ndekete bu nekk dafa am caabi léegi nag dafay bari ñoo xam ne buñ xamee yàlla tuuti wala mu uñi leen tuuti wala ñu am maqaama wala sax ñu ne dañoo def aras ñëw dañuy jàpp ne ëpp nañoo joxe addiye fi mu ne ëpp nañoo xidma fi ne ba yàlla nag bàyyi nag mu ne bu boobaa sa baatin dara dem de waaye zahir bi moom da ngay nekk di jàmbaare loolu lu doy waar la bugguma cee bugguma koo bugguma mu gudd waaye bàyyi dem na sax ba ne même waa daara bi sax boobu sax tari bi yi tarbiya mais même waa daara yi ñi nga xam ne jàng alxuraan la ñuy def ku ci mën a tuta joxe àllarba doo ko loolu nag waaye nag ku nekk la nga mën ku am juróom ku sax boo koy ne def sol dem bale waaye daal ñàkk di jël xam-xam te doo doo doo joxe mu faaw benn dara loolu moom dootu ko bàyyi mu ne képp koo xam ne sax da nekk sama dëkk bii façon yéene joxe addiya façon yéene xëj ma bàyyi leen ne sama taalibe nga waxal ne dëkk loolu laa waaye bu ngi nii dégg wa man radiya bil kasal mimman yadda'i annahu xadamatun falyastaxil bi amri nafsihi wa yatruka da'wa alxidmati mu ne ku dem ba mën a toog joxe ak yéen mën a toog bu sëriñ bi ootee doo def tee dem uti doo def lu lay jëriñ te nga te nga bàyyi di ne la nga dem seeti leneen loo xam ne nii mën na la amal njëriñ parce que boo ko defee perte nga ñaari yoon loolu mooy benn lettre benn lettre bu mujj bi rek moom moom day mu ngi nii mu ne xarrir risalata illati min ansaratin anni askuru saayahum fi jamii lmayadini wa ubariku amalahum summa inni uharriduhum ala ziyadati fi tadxiyati bi anfusihim wa amalihim li iqamati sharai dini lxamid wal infaqi fi sabilillahi taala laysa an yacbida ahadukum ila juzin tahirin wa yunfiquhu bal alquran yaqul anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tajammamu al-khabitha minhu tunfiquna waaye mu ne loolu sëriñ Aliou leetar bii nag toujours dama koy tiitaroo parce leetar la boo xam ne ci leetar yi la bokk bàyyi jox ko ko sant ko ko imaam Cheikh Tidiane ñii ci bugg lu baaxam ak bugg a dimbalee mbokkam mu ne mooy ubbi bagage am yi rek bu gis ko ci bi mu ko gisee rek gis lettre bi ñu wax ci ne ansaaru diin rek mu ne lettre bi de sama mbokk moom ci saa si la oo doomam daal di ma oo ne ma gis naa lettre boo xam ne nii yow moom daf laa concerné ne ko lettre bu ma concerné ma ne waaw mu ne ma dama ko gis sama bagage bi bàyyi mais bi ma xam naa ne yow daf laa moo tax maa ko jox sama doom pour mu indi la jox ko Abdoulaye pour mu indi la bàyyi di wax ne yow sëriñ Aliou bindal leetar jamiyat ansaari diin gis nga wax jaa ngi noonu bindal leetar ansaari diin neneen maa ngi gërëm seen liggéey maa ngi euh, barkeel lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci ay jëf waaye nag maa ngi leen di wax ne nañ yokk seen loxo nañ yokk seen itti nañ def ay sacrifice ci seen ba seen bopp nañ def seen sacrifice ci seen alal dégg nga ngir lan ngir ñu mën a taxawal diine nañ jël seen alal joxe ko ngir yàlla mu ne waaye bu ñu joxe seen alal bu kenn jàpp ne rek euh, maanaam dem jël li gën a ñàkk fayda ci sa alal yi wala nga jox ci tuuti mel ni kuy sarax yàlla mu ne buñ ko def ndax alxuraan daf ne bu ngeen di joxe yàlla bu leen dem jël li gën a ñàkk solo ci seen alal wala li gën a néew ngeen di ko joxe te bu fekkoon ne yéen la ñuy jox ku la joxee noonu nga mel cër bi nga xam ne ku la ko joxoon nga mel nga di ko jox yàlla mu ne nañ moytu di dégg nga mu ne la budda li kulli ahadin minkum an yatabarraa bi qismin kabirin mimma ataahu llahu kullun ala hasabi saati mu ne du mën a ñàkk dafa war taalibe bu nekk lim am ci alal mu jël ci parti bu mag jagleel ko dimbale mbooloo bi jagleel ko jox ko sëriñ waaye nag kenn ku nekk ak sa kàttan dafa am loo xam ne koo xam ne cent franc moo bëri ci moom am koo xam ne mille franc moo bëri ci moom am koo xam ne mën naa joxe ay millions ku nekk na am ci alalam ci ñàkkam loo xam ne moom parti boo xam ne moom daf koy jagleel joxe ko addi wa man minkum bina ada daari la budda yaqtaa lahu mimma ataahu llahu maa yunaasibu al-amal allazi yuwaajibu man faxtu min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqiin mu ne ku bëggoon a tabax di génnee ci sa salaire wala ci sa liggéey ci sa mbay mi wala nangam bu ko cee génnee partie boo xam ne tabax bee ko moom xam nga ne la ngay génnee dana tolloo tabax bi nga bëgg tabax nam toll mënoo bëgg a boo bëggee tabax eh, ñaari ñaari ñaari ñaari pantere la ngay génnee ci alal di ko jagleel ak boo bëggee tabax ay ay étage yu taxaw ak boo bëggee tabax ay ay ay ay loo du benn donc mu ne bàyyi mu ne lu tolloog ambition yi ñu am ak lañ bëgg réaliser nañ ci nañ dajale alal ju toll noonu ñu xam ne ñun loolu foofu lañ jëm loolu nag mooy ku nekk rek la nga man nga cay def bu ñëpp defee liñ man dafay daal di mu ne waaye nag booy joxe tamit na nga fàttaliku ne yàlla nee na lépp loo ma jox rek man dama koy rembourser te ah ak ma mën a ma ma ma mën a rembourser man man mu ne wal fil xitaam asalullah jalla wa ala an yansurakum wa yaj'alakum ansaara diinihi bi kulli maa lil kalimati min maana wax jaa ngi noonu mu ne fu may tëjee suma wax man bàyyi mooy maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla def leen ngeen di ansaaru diini dëgg-dëgg ak nag baatab ansaaru diin ansaarullaahi maanaa yim am ñëpp ca yaatuwaayam ba ngeen ngeen dugg ko maanaam bu leen ko jël ci benn koj bàyyi beneen bi bu leen ko jël yaasal leen ko baatu ansaar mooy lan nga dellu ca cosaan la baatu ansaar mooy lan mooy nit koo xam ne yàlla ko jox mission mu war koo doxal soxla ay góor yoo xam ne ñooy taxaw mi ngi mel ni rek président de la buñ fal mu soxla lan ay ministre yu yu yu karam soxla ay euh, ay ay ay ay directeur soxla ay ay ay ay nangam lu nekk soxla ba lu nekk rek ba ca assemblée ba lu nekk mu soxla ci ay nit ñoo xam ne ñu diiñ lañ ñoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom dafay xam ne mbir mi sama dafay jàpp ne mbir mi sama lépp waaye mu ne loolu mooy lu jël boo fi axiir nag li may wax mooy damay wax ne nit ñi am na lu bàyyi ma sa wax ci jaamu yàlla dafay valable ci bàyyi bàyyi daf ne nit ki su buggee sérieux ci li muy def bépp jaamu yàlla bu la yàlla sant balaa nga koy def laajal sa bopp benn question ndax lii yàlla sant ma am na ci luy jëriñ yàlla wala déet soo tontoo sa bopp yàlla gi ci lay gën a mu ne waaye lu yàlla tere balaa nga koy bàyyi laajal sa ndax lii yàlla tere am na ci luy suñu wóoree ni yàlla sant dara amalu ko ci njëriñ kon buñ koy def danañ ko def ak itte xam ne ñu léegi ñun tamit dañ laaj suñu bopp ndax lii ñu bàyyi sant am na ci lu jëriñ bàyyi la de waaw xam nga yow sa doom ji nga xam dañ naan ko demal nga sangu dégg nga boo sangoo ba pare na nga jiw sa yaram bi ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu nes nesi solal sa bub mi gën a rafet nga dóor parfum boo ñëwee ma may la ma may la mil ma may la mil franc wax dëgg yàlla loolu neex na ko di yow yaay sangu yaay sol li ngay def yëpp sa njëriñ la ba pare ñu jëlee ci fay. loolu la ñu bàyyi sant ni addina bii addinaay mbooloo la addinaay ànd la ànd addinaay uufante la kenn mënut a dem yow kenn fa al wa aleykum bil jamaa fa innama yakulu zib min al mu ne na ngeen ànd def mbooloo parce que euh, tinn su ñëwee ci ay euh, gàtt bugg leen a lekk ba mën a lekk mooy ba beru mais suñu àndee ñoom ñëpp bu leen laal gisoo ko boo ko gisee ci film yi nga gis ñuy wane euh, kii euh, rabi rabi àll yi lu ñàkk-ñàkk doole lu ñàkk-ñàkk euh, défense tant que ñu ànd gaynde du leen soxla te pourtant danañ toll ah, danañ ci am yoo xam bu leen buñ ko mënul leen ko dara parce que amul mën a xeex ak moom bu leen per ci la ko song loolu secret mboro kon nag li ma bëgg a ci gàttal mooy taalibe Baay su fekkee ne dañoo bëgg ñu jox bàyyi gëdd fii ci réew mi bi nga xam ne gëdd bi nga xam ne moom la bàyyeeroo ci politique ci côté politicien jox ko ko ci côté lépp nañ fexe ñoom yi tamit ba jox bàyyi gëdd bi nga xam ne moom la mérité mooy comme dañoo wax ne am nañ sëriñ boo xam ne kenn du moom nañ fexe ba nekk taaliba yoo xam ne kenn du ñun oustaz mu ne kenn ku nekk ci ñun wér na ko ne mën naa tiitaroo bàyyi waaye kenn ku nekk ci ñun war naa laaj na laa bàyyi nag li ñuy tiitaree yooyu duut alal bi ñu koy jox duut nangam duut nangam duut nangam mais liñ koy mën a delluwee njukkal bàyyi mu ne bépp bi boo xam ne dem na ba gëm ne man defar naa ko ci zaahiram ak ci baatinam defar naa àddina ak àllaaxiram mu dem ba am yéene lu ma mën a delloo njukkal maa ngi koy wax ne ko len rek la ma mën a delloo njukkal mooy yéwénal digganteem ak digganteem ak boromam yéwénal digganteem ak ay bokkam bu ko ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla déggloo ci topp loolu def na comme ni ma ko waxee mbooloo mu bàcce la euh, man bu may xaar li may wax xam naa te lu ma wax rek am na lu tax ma wax na mu ne mbooloo bi moom képp ku fi ñëw fii billaahi di nga yëg ne ñëw nga foo xam ne bàyyi la waaye nag maa ngi ñaan tamit ñii di ay yi euh, comme léegi àddina bi yaatu na te moyens yi bëri na nañ ko fexee tasaare mun gën a yaatoo ba nit ñi xam li ñu tax a jug lan ñu ngi oo muqaddam yëpp parce que mbir mi mënta sotti te muqaddam yi bokkuñ ci lu tax mooy wax ak muqaddam moo gën a yomb ku nekk nga bëgg a dem këram wax ak moom. mbooloo mu nosewu nga wax ak seen kilifa mu wax ak ñoom mu gën a yomb waaye yéen ñi nga xam ne yéen a yor ansaaru diin tamit ak yéen a yore mbooloo man tamit maa ngi leen di laajee biir commencé ci sama bopp ne ñu ni tamit nañ seet suñu bopp tuumaal suñ bokk ne est ce que du ñun méthode ñuy yi ñuy jëf jëfee nit ñi moo am problème moom képp koo xam ne dafa yëg ne dañoo war a def délégation bu mag dem ci moom buñ ko def bu ñëw nañ ko def su laajee sax ñu ne ci délégation bu ñu dem seeti bu ñu dem seeti jar na mu ñëw bu yëg su amatee nañ xam ni ñuy yëgee nii am na ñu war a déggee ci média bi am na ñu war a yónnee rek carte carte invitation mais am na ñoo xam ne dañoo war a dem ba ci ñoom yëgale malgré ne sax mën naa am wartoon a demee noonu waaye nag nit mooy moom moo bindoo noonu te nit ku nekk yi tamit maanaam daal li ma koy tëjee wax ji damay bañ a ubbi at beneen parenthèse mu gën a gudd commentaire bi gën a gudd mais dama koy tëj mais li may tëj mooy benn nettali boo xam ne Alaaji Baram Ndiaye di doomu euh, Zeynabu Badiane Ndiaye bi nga xam ne moo bokk ak Baye Ndiaye Baye mooy borom dëkk Madina moom a nettali nettali bu doy waar mu ne ma moom dafa amoon benn habitude mooy jamono bàyyi même bàyyi sax léegi-léegi dafa daan nekk ci dëkk bi bàyyi di ko oo di ko laaj naan ko ndax yaa ngi ci dëkk bi loolu sàgganteem la bu koy daal dafa mu ma gannaaw bàyyi sëriñ nekk fi kon yi tamit noonu lay def ak moom dama koy gëj waaye comme suma yaay moom du gëj ci kër sëriñ Aliou bàjjan jee dem kër sëriñ Aliou leen xista bi bu baax a baax mu ne sëriñ Aliou ko bàjjan mu ne ko man day dañ ma fee indiloon ay yére yu yu yu yu kii ay yére ay garam bu baax ma jëloon ci benn dencaloon ko baraam sa doom ma bugg soo demee nga oo ko ne ko mu ñëw jël si mu bañ ne ko mu toog ba mu yàgg mu dugg ci biir jël dara ji dugal ko ci mbuus lem ko ba mu baax mu indi ko jox ko ko ne ko bàjjen bu ko oo nit ki su fekkee da ngay jëflanteeg moom te yàlla tax da koy fekk si ci ni mane asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala toujours ba kaw maanaam xëy na ni loolu luñ ko tax a rek mooy mbooloo kon bennoo mbooloo mi wan nañu ko ci anam yëpp waaye wan ñu tamit ne daje rek waaye ñëw na ci unité ñëw na ci organisation waaye surtout ñëw na indil ñu Mawlana Cheikh Ibrahim comme acteur de développement social et économique ci wàllu mbay ni assurer autosuffisance alimentaire parce que bëgg a wax développement pour nga dem ci kanam parce que daayira dëgg la daayira wax nañu ne ñu prolongement wu jàkka la dafay defar nit ki indi na ko ci lettre bi mujj a sax baaxee nit ki. daf koy dafay defar nit ci biir defar ko ci biti baatinam na zaahiram yëpp lay defar te gis nga kon da nga gis ne kon daayira yi dafa mën a dem ba nekk daayira de développement ndax ku bëgg a wax développement rek foog nga assurer autosuffisance alimentaire te gis nañ nit ñu ko indilee nga tracé bi Mawlana Cheikh Ibrahim nga fekk ko ka nekkoon sëriñ bi doon tarqiya di éege nit ñi di leen di wàccee moom ngay dem fekk ko ca tool yow mu ànd ak gaañ yi liggéey muy góob gis nga dégg nañ ñun ñu ko waxee wan ñu ba nga xam ne nañ lañ bëgg kon li président de la di wane fierté ci cet acteur de développement que fii Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kon nag kooku wan nañu ne ñu ku topp ci moom ku aju ci moom waroo yaa sa waroo toog waroo yaa caayam foog da nga war a jóg taxaw di góorgóorlu ci lu dajale moroom mi mais lu leen mose tamit ci jamono bii ñuy dund kon dëgg-dëgg sëriñ bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant te doyloo ci wax kese tamit nag parce que dëgg la li waxtaanee na ci ñaanoon nañ la woon en tant que conférencier waaye tamit wax en tant que président national Ansar Dine te loolu tamit ci nga nekk say guddeeg say bëccëg yëpp ci activité yu mel ci nga ko jeexal ñu ngi gërëm sant di ñaan yàlla mu may ñu dégg topp te gis nga ni. mujjee li may wax ne moom waxam daf koy utal ay illustration gis nga lettre yi mujjee indi nim ñu ko nim ñu ci wane maanaam nga gis ne kon légitimité wu ansaaru diin doonu tudd ñu démontré ndax loo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko bind ci loxoom toog ñu jàng ko ci kanam borom ci kanam muqaddam yi muy wax muqaddam yi te foofu la conclure waxaat adressé waat beneen discours bu bu beesalaat waxaat muqaddam yi ak wane disposition ne pare na pour fépp koo xam ne fii nii rek niru na blocage wala ñu jotul message bi ñu war a jotee parce que foofu le problème bi nekk transmission de message fu nit message bi dafa war a jàll ak façon bi koy jàllalee moo tax tam thème bi dëgg-dëgg am na am na solo waaye ki ko doon développé bi nee naa ko jaar na ko ci mbooleem fànn yëpp ci côté yëpp ci aspect yëpp bàyyiwul dara amatul lu ñuy leeral xanaa rek tënk pour wane nag kon ñun fi nekk nii. li des rek mooy sa mettre au travail bi soobu rek nekk ci soobu ci liggéey yàlla nañ ci yàlla defal tawfiq yàlla yàlla dëgëral te dëgg dëgg nit ñi ngay wax tamit sëñ bi ay soppe yoo xam ne yi ñu jeex tàkk ci liggéey ko laa la seet moo leen moo leen itte loolu rek moo leen tam bala ko xam rek ngay woote dara di yëg nii pour lu jëm ci yëngatu ci lu jëme kanam tey te tamit yaakaar nañ ne ak élan bu bees sànq bi président national bi wax wax na intalaab jëli nouvel élan bii nii ñoom ñi ngi am yaakaar bu baax ne day am benn rupture incha allah parce que lii rek mooy li nga xam ne mooy attente bi muy tëj nee na Mawlana Cheikh Ibrahim wax na ne moom li muy xaar ci taalibe bi rek mooy ñu yéwénal suñ diggante ak suñ borom waaye yéwénal suñ diggante ak suñ borom iza salahat ma baynakum wa bayna rabbikum waxul ne na kii faqat nirtum xaayata ikraam yi na dafa nekk ba dayoo teraanga ba lu gën a mag kooku nga kon lim sëriñ bi doon wax léegi ne lii bëggut ci dara lu ko ñeel dara jox dara ko yitte du loo xam ne lii nii lu jël ci luy delluwaat ci moom intérêt parce que wax na ko ci ay waxam laysa al-maqsuudu nafsa nafa anfusina bal nafa aayidun lahu lu mel noonu kon nag yàlla nañu yàlla dëppale yàlla defal ñu tawfiq euh, bi doon wax li mu doon leer na naaj leeral na ñëpp xanaa dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla gën ko dëgëral ci mission bi ak euh, responsabilité yi nga xam ne moom la ko xalifa bi mu am ci tawfiq am ci ndam loo xam ne ni nii danañ dem ba li Mawlana Cheikh doon wax ci lettre boobu balaa fin mandaam congrès xam ne bii nii dana taxaw. incha allahu ci ni ko bëggee woon adduna yëpp teg ci seen mu kawe ñu gis ay détails ay résultats yoo xam ne dana kawe suñu jox parce que moom li mu doon nestori moom laa ne Cheikh Ibrahim ak ouverture d'esprit bi mu daan mooy ne Ansar Dine bu taxawee dafay mel ni un état dans un état yal na yàlla dëgëral ñu que moom nit ki ki taalibe bi ki muy wax na ko sëriñ bi wax na ko léegi dafay nekk koo xam ne bu paree mu dem fu nekk di jëriñ àddina ndax ci communauté bi rek ngay gis lu nekk chef d' état wala ancien chef d' état ancien chef de président parlement ancien premier ministre di ci gis ay ingénieur di ci gis ay professeur ay enseignant ay médecin kii da rek man ni ingénieur laa nag bu kabin bi organisme yi mag di di ko liggéey loolu di ko di def kon ñun ressource humaine dëgg-dëgg am nañ ci li ci doy sëkk waaw ay personnes ressources rek li des rek mooy tën si nose ak jublu ci liggéey bi yàlla nañ si defal tawfiq sëriñ bi kon jox la nga tëj ñaan ñaanal borom bi wasalaamaaleykum wa di maanaam dama bëgg a complété rek ne mu moo leen ñu yore mbooloo li ñu di ñaan rek lenn la maanaam affaire bi lu simple simple képp koo xam ne mu nga wala mbooloo nga wala association soo fexee ba association bi kenn ku nekk am carte membre carte membre bu 2500 dong lay jàpp fexe ba bépp membre joxe benn 2000 francs man dama ne sax loolu yàgg-yàgg danañ ko mos a changé gi parce que benn taalibe bàyyi professeur Bang mii nga ne ko 2000 francs lañ la laaj cotisation annuelle ngir bàyyi dëgg-dëgg xolam ëpp na loolu waaye nag xaj na dañ koo natt ci li gën a néew li nga xam ne élève sax ñemewut a wax ne mënu ma ko ba mbooloo mi nga amee ku nekk yore carte membre carte membre moom benn yoon ak mu jot mu joxe deux mille francs nga yore sa kaye xam ne yow loolu mat na bu yeboo nga jàpp ne yow wàccoo nga ansar bi loolu nag bépp mu xaddam xam ne benn deux mille francs bu sa taalibe bi di joxe année moo ko yàqal addee jëm la jox taalibe boobu bu yeboo nga ñaanal mu dem te xam ne foofu amul amul njëriñ waaw ok loolu lañ soxla kese ku ko def wàccoo nga li ci des mooy loo kawle yëgal ko ansaar din ñu mobiliser ñëw lu ansaar din kawle moo wax la ko nga mobiliser ñëw benn muqaddam bëggatuba fii ci tund bii mu wéet na ngeen jokkoog nit ñi ba nga xam ne muqaddam bu ci am évétement am na ko yëgal président ansaar din mu yëgal ko mboolem muqaddam yi ci dëkk bi taalibe bàyyi yëpp ñëw sotle ko feesal affaire ba indi seen participation mu réussir buñ ko ko defalee xolam neex bu ëllëgee ku oote moom mu sawar bu ko defee nit ñi nekk ci jàmm bàyyi am sax lii mooy li nga xam ne moom la moom lañ soxla te yaakaar naa ne lu yomb la te amul kenn koo xam du sa avantage te am kenn koo xam ne tamit dañoo ñëw parce que bàyyi ittihaadu jamiyaati la wax ittihaad mooy bennoo mais jamiyaati ay mbooloo la waaw ay mbooloo la mooy ne na tudd lu mu mënti tudd na nekk euh, ya na nekk daayira na nekk lu mu mënti doon waaye nañ ko nosee mbooloo moom tamit na am fu muy jokkoo ak Ansaar Dine rek di def cotisation bi lu mu la yëgle ko ñu wax ko def ko oustaz maa ngi lay ñaan képp koo xam ne bokk na ji jokkoo wàccoon ak Ansaar Dine ci li li mu warloo moom bu amee xew jugal def ko sa xew yëgal ko ñëpp yëgal ma ko man mii bu fekkee damaa war a ñëw ma ñëw su fekkee damaa war a yónnee ma yónnee waaye na taalibe bàyyi yëpp dem bu benn mboom bu benn jotaayu bàyyi rànqati xaw a di di di numu da jotaay yëpp fees ñëpp ñëw ñëpp jàppalante lii daal mooy li nga xam ne moom lañ عليك صلاة الله ثم السلام فطرها إلا